thousand. yow fan nga jóge dama demoon duggi yow lan ngay def marché en plus ana góor ak téye pañe marché. maa xaritu Cisco nga. kat mooy Cisco. Cisco sama doom. non kon nag li ngeen di wax nii gisuma ko bàyyi leen di accuser nit ndax li ngay def nii xadi buñ ma ko defoon du la neex xadi mi ngeen di wax loolu gisuma ko ci moom ndax wanuma ko. Eh! maa la gën a bandi aller retour damay dëgg sa eh dindi sa loxo noppil ferme ta ma nag ndax nag ñëpp waxoon nañ ma ko mhm. ma teg ci sama tànk bàyyi mu sedd mais yow naka jekk ma xam ne yow doo changé